jahannama ñeel safara katiiran lu bari minal jinni ci ay jinne walin si ak yi nit bindal nañ leen ngir safara nu ñuy mel mu ne lahum ñeel na leen xulubun kol yoo xam ne laa yafqahuuna du ñu déggee dëgg bi ak xol ya wala hum ñeel na leen ayunun ay gët yoo xam ne laa yabsuruuna duñ gis dëgg bi ak ñoom wala hum ñeel na leen aasaanun ay nopp laa yasmauna du ñu déggee dëgg bi ak napp ya ulaayika ñooñu kal ñu ngi mel ni jurug kër gi ñu ngi mel ni jurug kër gi ci ñàkkam xel bal lu fi nekk hum ñoom sax adallu ñoo gën a réer juru kër ndax jur moom ay bàyyi ma la ci ulaayika ñooñu nag bon ba mel ni ñàkkum xel ba mel ni ay bàyyi ma hum ñoom alxaafiloona ñoo di way ñoo ñoo di way sàggan ya taay la asmaul husna loolu lu ko tax a wàcc jullit ñi dañu daan ñaan yàlla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 kon loolu xadisu abu hurayrata la jëlee ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ne inna lillahi tisaan wa tisiina isman illa waxida man axsaaha daxala aljanna wa huwa witrun yuhibu alwitra mu ngi dalee ci allahu yem ci sabuuru xusna mu ne waaye bu leen ko jàngal di wut yeneen tur walillahi ñeel na yàlla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 yaa doona boo xam ne dañuy jubale àq ci dëgg wa bi ci dëgg yaa diloona la ñuy maandoo wala dina ñi nga xam ne kette bu weddi nañ bi ayaatinaa ci suñu alquran sana tadrijuhum dana ñuy jey leen min aysu laa yaalamoona ba fu ñu xamut wa um lii dana muñel la um ñeel leen inna kay di naka sama dogal ndax yàlla du fexe matinun lu dëgër la awalam yatafakkaroo ndax dañoo xalaatut maa bi saahibihim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 qad iqtaraba jege na ajalum seen tig te xamuñu ko fa bi ay hadisin ana wan waxtaan baadahu gannaaw alquran yuminuun la ñuy gëmati buñ gëmul alquran man yudlillahu kuréelal na ko yàlla fala hadiya diraaju jubal lawoo ci moom waaye dara mu bàyyi leen fi tuxyaaniim ci seen réer ga yaamahoon a ñuy ñuy déng déngi yasalunaka ani saati ayaana mursaha